dal leen jàmm seen ànd ak seen seen YouTube ba tas info bonne nouvelle pour ki nga xamante ne moo di Fadilou Keita wala ñi nga xamante ne ñoo di ay ma comme moom ki nga xamante ni moo di mm, doom ci kii di Nafi Ngom Keita yégle na ci ab lettre boo xamante ne xaatim na ko ci kat euh, ñii di xarit yeeg sympathisants yeeg ñoo ñëpp di leen yëgal ni gannaaw ci woon yi nga xamante nit ñi dajal nañ ko ci di ko wax ngir moo arrêté li nga xam ne moo di grève de fin bi nga xam ne commencé na ko euh, nee na moom arrêté na lii di grève de faim bi ngir loolu nga xam ne ñooñu ñu ngi ko koy ñaan waral mu arrêté ko nee na kat mi ngi gërëm tamit sénégal yëpp nga xam te ne ay xarit ak jegenaale ñoo ñëpp neen wane seenu mbëggeel jëmale ko ci moom ak seenu sopp nee na ñoo ñëpp amul seenuk fay waaye daal lam leen xamal moo di message boobu moo di ni moom arrêté na li nga xam moo di grève de la faim bi nga xam te ne tàmbali woon na ko nga xam ne kii di Guy Marius na ko yëgle gannaaw ba nga xam na foofu ngir di fa amal ay nemmiku kon kii nga xam te ne moo di Fadilou Keita mi nee na commencé waat na li nga xam te ne moo di ak lekkam ak naanam te it boobu ma ngi ciy profité nag di jëfal ñëpp ñii di waa Sénégal naka noonu di leen ñaanal euh, par avance ci weeru kooru jàmm ak salaam